Euh, euh, ci benn lay tàmbalee euh, am nañ benn ñaar ñett ñeent ça veut dire que incha allah anyway ba ngeen a continuer léegi nan la fay demee ba xam yéen seen propre fond ngeen di continuer wala tamit est-ce que da ngeen di tendre laa mais autorités yi wala ñeneen ñi nga xam tamit bëgg nañ ngeen bëgg ñu ñu ñu ñëw wala comme ni nga koy waxee rek xas la ngeen def wala. waaw merci beaucoup grand bi ba tey yaa ngi laaj ay questions yu solo. waaw maanaam demaguñu ci benn autorité nag di ko expliquer ni mu demee. Mm. mais bëgg nañ loolu boole nañ ko suñu programme. Mm. parce que nit moom buy dem ku ko jàppale dem bi dafay gën a yomb. Mm. maanaam lépp loo gis lu ne bu ñu nee feccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbag yi. loolu waxi olof la te lu wér la. ku ci mel ni yow aussi tamit dañ lay sant bu baax a baax di la gërëm. ndax ñu ngi gis sa taxawaay ci laa quoi. waaw. mais bëgg nañ aussi tamit pour l'instant. Mm. pour l'instant moom suñuy propre moyen la ñuy joxe. Mm. comprendre dañuy kuloo kuloo comme euh, ni ko gars yi di defee rek. Mm. des fois kii jàpp ci xam nga génn benn weccet kii aussi tamit xam nga ak keneen ak keneen ñi nga xamante ni si ñoo bokk ci groupe bi. loolu la ñuy nit yi mais nag képp ku ñuy dégg aussi tamit ñu ngi lay tàllal loxo aussi tamit ngir nga ñëw jàpp ci. Ah, parce que comme ni ko sawaay waxee doonatul. mbiru kii mbaa mbiru kii mbiru ngaay gi la bëri ngaay ñëpp ci képp ku bëgg bokk aussi tamit. ubbil nañ leen suñuy buntu ngir ñu mën a teew. Hmm. ok euh, noonu lay noonu lay demee léegi lan la ñuy xaar maanaam lan la ñuy xaar euh, ci waa Taddoula parce que tamit comme que commencé ngeen benn série ok tundu euh, undu ah ok dundu dundu undu. dundu dundu undu ok dundu undu nan leen kiiwee nan nan leen nan nan la leen dikkalee nan leen dikkalee da gis que ni. da ngeen gis que ni instant bi que banditisme euh, dafa bëri ci dëkk bi wala tamit bon da ngeen ko jël comme côté positif wala côté euh, négatif euh, wala lan. waaw dundundu boo ko xoolee fekkee yaa ngi koy seetaan di ko suivre. Hmm. dëgg dëgg dëgg di nga xamante ni maanaam li ñuy wax ni wàllum banditisme mu ngi ci mais. Hmm. ñun positivement bi lañ ko jëlee quoi ndax soo dee seetlu ci benn épi épisode mooy épisode 2 bi quoi. Hmm. mooy Ramjees bi mu téyee or bi noonu mu ngi doon jàllale benn message boo xamante ni day wax ci li nga xamante ni mooy wàllum xaalis wàllum or ak ni nga xamante ni moom lay jaxasee li nga xamante ni mooy àdduna quoi di ci bàyyiloo xel nit ñi. Hmm. gaa nag ñun ay gone lan quoi que peut-être suñu xel mën naa bañ a mat mais. ñun message bi ñu si jublu mooy message bu positif quoi ndax ñun ngaay lan dëkk ko te ku xam ngaay dëgg xam ni dëkku yar la dëkku diine la dëkku boo xamante ni fu ñu dem rek dañ leen di naw hmm. ko jëluñ jëluñu ci dara loo xamante ni luy négatif luy luy négatif la ci société bi quoi. parce que boo gisee lu tax ma posé question boobu da ngay xool comme yeneen série yeneen mhm. série souvent côté violence bi côté mhm. violence bi dañ koy gën a indi. Mhm. Euh, souvent ci euh, télévision yi. Euh, wala yeneen ak yeneen loolu est-ce que du inciter la jeunesse. tamit ñu suivre comme par exemple exemple ñu ñu yaakaar que ni que loolu mooy life bi. wala yeneen ak yeneen wala yéen comme ni ma koy waxee sànq rek da ngeen a indi beneen côté bi. que loolu dafa doon lu nga xam ni jekkul. Euh, tamit wala tamit euh, nit nit ñi dañu war a liggéey ñu bàyyi facilité wala wala comme wala comme gars yi ni ñu ko defee série la rek. waaw noo ñun dinañ xaw a démarqué wu tuuti nag. ndax boo seetloo ñun dañoo jël maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a diminuer ci société bi. ñu jël mettre leen en valeur di wax ci ñoom yenn aspect yoo xamante ni yu yu positif lay doon quoi. ndax ñoom boo seetloo danoo bàyyi lépp. danoo bàyyi lépp li ñu doon def lépp ci lu bon doon koo bàyyi jublu ci li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy lu baax li quoi ndax euh, ñoom bu njëkkoon lan daan dund gaa nag gun foofu quoi mais dinaa la ko may ndax yow suñu grand nga quoi bu njëkkoon lan daan dund nekkul woon dund boo xamante ni bu baax la dem nañ ba xam ne lii nekkul lu baax ñu ñu koy regretter di ko réccu dem ci beneen dund boo xamante ni noo bëgg lépp nekk loo xamante ni même su fekkee du nekk nitu exemple nit ñoo xam ne ay nitu exemple lan ko mm-hmm. mais dinañ bàyyi lu baree baree baree baree bari li nga xamante ni moom lañ daan dund ci seen live quoi. parce que dama ko xaw xool si euh, kii bi tuuti am na benn booy mu nga xam ne si biir euh, kii bi euh, scénario bi dafa nekkoon di xoslu. Mm-hmm. dafa nekkoon di xoslu peut-être mi ngi doon dund benn kii yooyu am ku nekk ci biir. Euh, mu ni ko bu fekkente ni euh, da nga bëgg a dund euh, dund boos pour nga am pour nga am lan lan lan xaw ma laa rek. waaw full money waaw pour nga pour nga am full money. parce que boo xoolee boo xoolee comme ni suñu jamono bi ñu bëri loolu lañu dund. ñu bëri bëgg nañu am full money mais est-ce que full boobu ni nga koy amee tamit day doon lu yomb wala lu ko yëg yu deme noona ah? waaw maanaam boo xoolee loolu li tax ñu indi ko. Hmm. maanaam gars yi fi ne léegi xoolatuñu am-am bi nu mu ñëwee quoi. Hmm. nu foofu la ñuy wane exemple conséquences yi après ci kanam dinañ xam ne fay demee quoi. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. léegi de toute façon ñi xool ñuy seetaan daal nañ continuer di seetaan. Mm-hmm. waaw yéen ak waa Taddoula dafay gën a neex. yii na yeneen bagage yu war a ñëw nag yoo xam yu tàng lay doon. Ah. mooy gën a mooy gën a mooy gën a doy waar. ok léegi comme ni ni ko Aja waxee euh, cinq minutes euh, moo ñu dese maximum xam naa ne sax euh, jeex na léegi waa Taddoula waa Taddoula lan lañ wax askanu waa Ngaye. ak euh, ñeneen ñi nga xam ni instant bi euh, euh, ñi ngi leen di suivre si YouTube est-ce que tamit est-ce que tamit instant bi laajul tamit ngeen def ngeen def comme par exemple ay projection ay projection comme mm, série yi yi ngeen jot a lancé nit ñi nit ñi mën koo capter ngeen def pourquoi pas série de lancement wala yeneen ak yeneen gars yi xam que ni carrément que Taddoula instant bi nekku ñu di fo affaire bi dañ ko jël au sérieux waaw loolu après ci kanam incha allah rabi yooyu yëpp di ngeen kii dañ ko bëgg def ndànk-ndànk rek. xam hmm. nga bëgguñu tëb tëb rek daal di lenn yëgul tëb tëb rek yegg fa ko yi hmm. waaw. li olof naan ndar xëy xëy sotti. Hmm. dañ ko bëgg a def ndànk-ndànk rek. Hmm. yeneen yi yu gën a doy waar dund und mi ngi ci kanam. Hmm. te acteurs yi nga xamante ni si ñoo nekk dund und ñoom ñoo koy joué. xam nga ba ay ndaanaan lan. waaw caaxaan taxu leen lépp aussi tamit. lépp loo xamante ni warna nii war na dinañ ko ci def lépp lu mu laaj aussi tamit dinañ ko di ngeen ko ci gis incha rabbi. bu soobee dina dina ça va chauffer daal. ok léegi pour ñu tàggatoo tamit message bi ngeen lancé euh, waa dëkk bi ak ñi nga xam tamit tamit bon euh, bëgg nañ dugg bëgg nañ dugg tamit euh, ci Taddoula pour intégrer wala yeneen ak yeneen tamit bon nan lay euh, nan lay nan lay demee juste tamit ñu clôturer en beauté. waaw Taddoula moom nekkul fi kenn quoi man sànq samay biir wax wax naa la. Hmm. Taddoula Taddoula am ngaay. Hmm. képp ku bëgg a dugg ubbil nañu suñu bunt te ñu benn bunt. Hmm. dañ fay nekkal ngir ngaay koo te ñoo ngi waaj a defar beneen casting. waaw si feeñ ñëw rek. incha après dinañ ko lancer. ok mais casting bi casting bi tamit nan lay demee comme par exemple est ce que moog bu njëkk ba euh, ñooy bokk comme comme comme comme ni mu fa demee wala boog da ngeen di soxla ay ay artistes yu bees am na am na benn artiste buy làqatu bu toog nii euh, <laughs> rako bi. ah ok ñeneen ñi nga xam bëgg nañu intégré bëgg nañu intégré mm-hmm. parce que tey jii soo ñëwee si casting bi suñu xoolee loolu rôle bi ñu la bëgg a jouer mën nga casé mm-hmm. dañ lay jël accepté la mm-hmm. yaa ngi comprendre suñu suñu wóoree yàq suñu film nga fekk doon quoi mais acteurs yi nga xamante ne moom ñoo see dund undu ok mais est-ce que dund undu tamit euh, bu ñu demee ba ci biir dina am dina am yeneen dina am yeneen euh, kii est-ce que dina am yeneen maanaam ñu gis si Euh, ñu bes, parce que tamit euh, mën nañ wax que ni mën nañ wax que ni euh, casting bi amna amna amna amna am na am na ñeneen ñu ma si gisoon mais ba léegi wala boog dañuy dem étape par étape. affaire bi étape par étape. lu mm-hmm. muy gën mm-hmm. mm-hmm. dem. day gën a gis lu bees. lu muy gën dem day gën a gis lu bees. la fa demee. ok noonu lay non lay demee waxtu bi ñu jagle woon jeex na tàkk mais dañuy bàyyi ak dañuy bàyyi scénariste bi tamit mu wax après ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii ah. waaw waaw ñu ngi leen di woowaa ngaay ngépp ni ñu ngi leen di wax ni ngeen dem suivre suñu seen bi nga xamante ni mooy Tadoula Studio Nek ci youtube bi ak instagram bi boo foo tàppe tadu laay si rek incha allahu rabi di nga ko gis ngeen si wurul te xam ne ñun ay doomi ngaay lan te ngaay rek moo nu ñor bi ñu dugg dugge wuñ ci ngir am xaalis dugge wuñ ci ngir am dara mais dañ cee dugg ngir amour pour bi nga ni moom am suñu dëkk jeune talent yi nga xamante ni ñoo nekk fii ñun danoo metti hmm. ñi nga ni ñoo ay ay di am ñu leen di produire te ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk si dëkk bi hmm. te xam leen li ci wàllu ni nga xamante ni vidéo hmm. te jëmaloon ko ñun kon suñu demoon ba tey tey ji ba fi ñun dañuy trahir suñu dëkk mais mais comme yeen ni ngeen commencé def ni comme ni yeen ni ngeen commencé def ni parce que tamit yéen ak sen propre moyen ngeen démé ak sen propre moyen ngeen démé amna ñoo xamné je crois que ñi ngi ngay lañ dëkk mais dañ nekk ci yeneen gox yi duñ produire kenn. mais comme yeen dem ngeen ba am sen volonté ak sen propre moyen ça veut dire que. noonu la comme ni nga koy waxee life hustle la hustle la hmm. ok débrouiller ndànk-ndànk gars yi euh, nu sax foofu lay gën foofu lay gën a neexee. foofu lay gën neexee ñu xam ñu xam que ni carrément que gars yi ñu ok noonu lay demee. tey incha allah xaar leen nu am na yeneen bagage yu bees tàq yoo xamante ni mooy waaj a ñëw ay séries yu bees tàq yoo xamante ni Tadoula dina ko produire quoi ay séries yu bees tàq yeneen casting ay yeneen nit yu bees tàq incha allah rabi hmm. Tadoula instant bi moom daal lépp loo xamante ni luy jëmale kanam gars yi rek ci lay dox te gars yi ñëpp ñu ngi leen di woo ngeen dem pour ok léegi ku bëgg a ku bëgg a contacter Tadoula. ku bëgg a euh, contacter boo defee numéro Ricardo di jot waa Tadoula gars yi ñëpp. maanaam képp koo gis mu yëngu Tadoula rek. ok pour ndéer la wax wax ni ñëpp ci lan bokk képp ku nekk ngaay rek boo ne ko waa Tadoula incha allah rabi mm. dina la wan fu nekk daal. Mm. Mm. ok euh, ok euh, noonu lay noonu lay demee. noonu lay demee euh, sur la meilleure des bandes fréquence 93 point cinq nga FM comme ni mu na koy waxee woon euh, waa Tadoula euh, ñoo doonoon sama invité ci couleur urbaine couleur urbaine yaa ngi koy am tous les dimanches à partir de 15 heures jusqu'à 16 heures su sur nga FM léegi ñu ñu bàyyi la nga wax après ñëw kii ñëw ñu teg waaw maanaam li ñuy tëjee mooy di gërëm ñëpp di sant ñëpp aussi tamit. Mm. di jiital cant geeg ngërëm li suñuy parents ñi nga xamante ni si nii ñoom ñoo meññ. Mm. di leen ñaanal bu baax yàlla bàyyi leen fii. di ci teg ñi nga xamante si ñoo bokk groupe bi. Mm. ñun ñëpp parce que ay nit buñ dee ànd faaw ñuy muñalante. en mm. plus aussi tamit di di comprendre rante quoi. waaw bu ñëpp ñëwoon xajuñu fii. mais mhm. comme que ñoom am na xelum jiital ñenn ñi ba li ñu def ñu doy ñu. Mhm. ñu jiital ñu ñu ñëw kon faaw ñu jàllale leen seen message. Mhm. di leen euh, ñaanal jàmm di ñaan aussi tamit waa ngaay waaw bàyyi xel ni seeni doom ñoo fi nekk di góorgóorlu. képp ku ci am idée bu rafet. boo ñu waxee aussi tamit dinañ ko déglu bu baax. dinañ ko jéem jëfe aussi tamit. waaw xeebuñu idée xeebuñu poos xeebuñu dara képp koo xamante ni si jàpp nga ni lii boo ko waxee waa Tadoula dinañ avancé. ubil nañ la suñuy bunt ngir ñu nga kiiwuñu ko képp ku am tamit xew boo xamante ni si nii gars yi dañuy dañuy dañuy foto ay xew defar album. defal vidéo xew tout ça. waaw boo contacté Tadou la 77 309 50 68 am na beneen numéro téléphone aussi tamit Sidi Dieng hmm. DG. ñoom ñëpp boo leen koo ci contacté rek dana jàllale kii bi. Hmm. foo ko bëgg aussi tamit mën na la faa fekk. waaw di tuubaat bu baax a baax di jégalu nag di gërëm auditeur auditrice a FM yëpp ñëpp ñi nga xamante ni si ñooy déglu a FM ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen jox dox daje nag waaw Sadula site bi nan fa dugg nan dugg ci site bi abone waaw fas yéene gis li nga xamante ni sii mooy moom la Taddoula di kii. ok noonu lay demee couleur urbaine la woon ak euh, Teuf Connection comme ni mu leen ko woon waa Taddoula ñoo doon sama euh, invité di bëggee képp ku nga xam ni euh, yaa ngi déglu couleur urbaine ak maam men Teuf Connection Forever c' est tous les dimanches de partir à 15 de 15 heures jusqu'à 16 heures ok noonu lay demee am out. àll bi damay yi bokkum tapet laa def rab yi tànk signal du ma bàyyi jël naa vol bi tàggu yaaye rus a dëppal sans médaille gëm sa bopp gëm sa bopp Tedoula et Tedoula vous donne rendez-vous le 21 décembre 2019 pour vous présenter la saison 1 de votre nouvelle série Doudou Umbi Life Ghetto. Kewal bu rëccee ab cëgëm bu méttiwul le reeru gende. Génneel saral koy saral. ko te murid bi moom la crise bi daaneel nga bàyyi ko fa moom la laaj ci man yow 400 ticket ngay teg de waaye teg ci 20 ticket ak bekoor bi nii oui lu ñuy coté fi nañ yox ci gars wax la 21 décembre sur votre chaîne Guet TV.